tracasserie routière moo ñuy bëgg a rey Sénégal gis ngeen ko ñaata faux gendarme lañ fi jàpp ñaata faux douanier ñaata faux police est-ce que da fee gis faux sapeur ah lan la parce que wutukaayu xaalis bi moo gaaw gone yi léegi kenn nangootu la jàng ku jàmm BFM daane maa ngi xaar concours douane maa ngi xaar concours police maa ngi xaar gendarmerie ndax wutukaayu xaalis ñu dem ba ñoom seen bopp ñuy rayante gendarmerie police da ngeen ñu rayante Touba ndax lan maa fi war a monté chaque jour nga gis police ak police rayante ndax lan fii waroo fee monté maa ko war a monté ma ne bu fekkoon réew mi tax du leen jaral rayante seen bopp a tax. takk der yu nekk ci réew mi ni ñu mon ni ñu taxawee ci réew mi. di addu kalpe li nga xamante ni nii addu kalpe lañ ko mën a tuddee mooy jël alal joo xamante ni teguwul ci yoon Sénégal gépp xam ko mu nekk loo xamante ni ñu bëri. xam nañ ko ci réew mi mu nekk nag ci sunu secteur ñun muy secteuru transport ñu dem ba xam ni mënatuñu dem ñu ne kon il fallait que ñu def intersyndical woo ci bépp secrétaire général syndicat bépp central syndicat ak bépp sénégalais pour wax réew mi ni leen le 25 décembre képp ku yor oto di daw ñu ngi lay lancé appel pour nga banque sa loxo ñu taxaw ba réew mépp xam ni dafa am lu tax ñu taxaw. tey jii ñu ngi jël ay équipe jox leen ay sabo fu ñu fekk camion ak loo sori sori tali ñu sabo la di la fay loo trente mille francs te bu jëkkoon ba léegi maa ngi ñëw ci Abdou Diouf bi muy créé lii sabo yi dalee woon classe ak góoru xuma gi nga xam ne dañuy taxaw ci tali bi nu leen neexee.

Nous, sommes ñëmé auto lañ leen fuñu nek nous, mais ñun Sénégal nous avons je ne sais pas organiser un appel le président de la République nekku fi pour yàq dafa am ñum fi tek mais nous wax askanu Sénégal sonn nañu règle bi nga xamanteni ni mom la cda wax pour montage parce que ñun ay ay chauffeur international lañu dañuy génn di dem ci yeneen réew yi ñett yooyu ñu fi waxoon dañuy waxoon boo génnee ndakaaru Kaolack ak frontière muy ñett ndakaaru Kaolack frontière compter leen tey ñun ñuy génn fii ba frontière di nga compter plus de cinquante montages ci kaw tali bi bi gën a garaaw mooy chauffeur bi day ñëw taxaw nga contrôler ko am mu amee infraction infraction bi mu amee nga ne ko dagal ma Russie parce que damay dem international yow ma Sénégal bu Sénégal nga ma attesté te attestation nga imposer nit ki nit ki dem ba fay ñu jox attestation pour boo amee loo fayee nga fay mais ku yor taxaw a fay forfaitaire bi nga ni Sénégal ko forfaitaire yoruma Russie bi dama lay attesté nga jóge fi nga fi nga fi nga nekk dem ba ca brigade ba nga nga nga doog a daggaru si te dañuy taxaw foo xam te ni un kilomètre la wala si sotti dëkk ba la ñuy taxaw loolu yëpp sa xeetu tracasserie la. police ak gendarmerie nañu yore ay russi ci bu ñu monté jotee ñu monté ak reçu boo amee infraction dafa war am tarif te am na tarif infraction bu boo def. baa ñu la bu ñu la mënee baal baal la bu la mënul baal daggal Russie fa taxaw ñu dem nga dem te Russie boobu daa war a war a 24 heures. waa Abdou Diouf cautionné woon loolu ñu bëgg a dindi affaire posage nekk wuñ fi lenn du sàcc c'est des voleurs. ñu taxaw di décorer benn policier muy amul yaakaar. ñu ni menn moom donc moo fi le lekk mbuxum 3000 policiers loolu gàcce la c'est honte gàcce la frigo jën boo sarse douanier boo romb mun la jox ma 30 000 nga wàcce jën on ma xool lu ci ne waaw dañuy def ba jëndu seer nu ñuy def ba jëndu am moo tax gerew bii frigo benn frigo daw le 25 dañuy taxaw le 25 le 25 le 25 décembre ñëpp taxaw jàmmarloo wala ndax ñun sénégalais lañ ci réew mi lañ bokk wala bokkuñ ci wasalaam